lii nag gannaaw yàlla bu ñu ko defee tamit euh, dañoo dégg ndigalu sëriñ bi ndax sëñ bi moo yëkkati deux cent millions euh, jagleel ko état bu Sénégal euh, ci jox ko chef de l'état ak gouvernement bi pour accompagner leen ci lii nga xam ne dañ naan feebar la muy coronavirus ñu ñaan yàlla nañ ci yàlla musal musal ci population bu Sénégal bi yëpp. loolu nag ci ndigalu sëñ bi yëpp ndigalu sëñ bi sëñ bi joxe ndigal tamit ci mboolem ku ko man nga dugal ci sa loxo def euh, social euh, boobaa ak léegi wax dëgg yàlla danoo gisut benn euh, act boo xam ne ci mbokku taalibe yi ak ñi nga xam ne ay ay ay ay citoyen lañ benn act bu ñu def gannaaw waxu sëñ bi maa ngi ci gis tamit ku mel ni Youssou nduur gis naa ko démb mu def ay act pour jàppale ministre de la santé yooyu di ay acte yu am solo ndax réew mi ñoo ko bokk Sénégal ku yaakaar ne rek boo xasee ba ba ba ba liggéey ba am loo dund rek pour yow la rek la loolu yow euh, defoo yëfi jullit àdduna lépp lu la yàlla xéewale da nga koy bokk ak nit ñi man fi nga xam ne moom laa nekk muy Touba war na maa mën a dox pour saafante ak askan wi loolu sax ñoo ko àndandoo ci suba ak léegi xëy naa demoon ci ay daara yu bari gannaaw bi ci laa dugg marché Ocass euh, dugg ci nit ñi wàcc ci terrain bi ci population bi saafante ak ñoom duxum ànduma ak benn protocole ñu baal ma ci ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Touba tamit di samay mbokki taalibee li ma leen di ñaan tamit ñu delloo si seen xel xam nga delloo si sama xel tamit dafa baax sëñ bi ñëpp a ko gëm ñëpp a ko yaakaar ñëpp a ko doyloo waaw ndax xam ah, dañ li mun si ni naa wa daay loolu ñun ñëpp xam nañ ko sëñ Touba li mu bind ci lu lu aar nit ak lu ko sàmm du xaaju jeex waaye nag fagaru dafa baax ci nit nag waaw fagaru dafa baax waaye di dox doxin woo xam ne ndax fan yii maa ngi dégg ay communication yoo xam ne ci dëkk bi tamit loolu damay ñaan képp koo xam ne dafa taxaw def benn communication naan corona amul dañ laa war a jàpp. waaw ndax parce que loolu sensibiliser wu askan wi nanu wax askan wi ñu dem jën ay saabu ak ay eau de euh, ku ko man nga def ko ku ko man ba man cee dimbali ay nit nga def ko ñu saytu fagaru feebar bi ndax feebaru corona lu wér la. lu wér la ndax loo xam ne luy lëmbi àdduna ndax bañ nañ ko ba ne virus kon virus lépp a ngi ci biir. jamono bii du jamono boo xam ne tamit euh, fu ne la du jamono dajaloo waaw kon ku ko man daal ci comme ni ko sëñ bi joxe ndigal ànd ko waa kër sëñ Fallou ci màggal gi ak yenn dajaloo yi lu luñ ci man rek ci gën a gën a gën a sellal ci suñuy nekkin luñ ci man rek nañ ko def. loolu tamit moo tax ma xam ne fii ay gone ñoo fi ne ay taalibe te wax dëgg yàlla gone yi ñu ci bari daara yi tamit euh, taxawu gañ leen war a taxaw lu ci baree bari euh, wax dëgg yàlla am na loo xam ne état moo ngi ci tànk pour gën a taxaw daara yi moo tax tamit daara ji fii di sama kër wax dëgg yàlla ma fi fekk sama mag di baax di si Cheikh Mbacke euh, wax dëgg yàlla ak rakam ji ma fekk ko fi di waaw di am ñu am taxawaay bu rafet daal ci jàng ak jàngale waaw moo tax daal ma xalaatoon dinaa fi ñëw pour du euh, tëjee fi sama karawaan waaw wax dëgg yàlla dii daal lu ma bëgg a dox ay tànk la yoo xam ne fii ba may dégg ñu ne daan nañ corona bi bu soobee yàlla jamono bu ne dinaa xëy bés bu set dem ci daara pour taxawu gone yi nag moom lii moom wax dëgg yàlla moom dafa manqué sax da dafa manqué daanaka damaa mujj sax damaa commande pour ñu andil ma ko ci Touba di wax ministre de la santé tamit mu gën cee dugal wut ci Touba euh, maanaam ci marché bi ak ci jumaa yi ak fépp daal ñu fexe lii ñu fexe def ko sel yi ñu wut ko muy ci askan wi daal beeg yenn jataay yi parce que nit ñi dañ koy dañ koy xëccoo kon da xam ne askan wi am na ñoo xam ne bëgg nañoo fagaru waaye mooy ni moo des waaw di wax ne état bu Sénégal daal seen ci ci yéeneem ndax président Macky Sall yaakaar naa joxe na ndigal mbooleem nekk ci gouvernement bi ñu gën a euh, fagaru man li ma ne sama mbokk ñoo bokkal APR waaw ñooñu moom ñoom su may soññ man ñooñu lay soññ dama leen a gisagul fenn daal te vraiment euh, bëgguma yëf yi ñuy ñu yemale ko ci président war a ñëw Touba ak euh, ak ak lu mel ni ay campagne ak yooyu maanaam euh, lépp looy def lu ne ci saw askan ngir ëllëg da teel a dox wax ko waaw moo tax wax dëgg yàlla ma teel a jug li ma am ci ay moyen mu néew mu bari ma ànd bokk ko population bu Touba di wax ne nag képp ku ne corona amul yow maanaam da wax li la neex corona lu am la kenn gënu fee gëm sëñ Tuubaa kenn ñëpp a ko yaakaar ñëpp a ko doyloo waaye nanu fagaru moo gën fagaru moo gën faju